kolin na jali yasilon jërëjëfe ami fidèle téléspectateur de Kewolo TV ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci tour ak santom dal leen nak jamm ci seen biir émission People News samedi bu jot ñu dal di leen ko andil avec la bonne version des informations ci li gëna fess ci actualité semaine bi di leen wax nag na mën leen bu baax a baax semaine passée nak ñew moon parce que dama amoon touti tawat mais maintenant votre Marie-Jeanne est de retour ba tax na nag du ma ci wël benn yoon dama ci dal di ci ànd ak sama ñaari na tango yi ngeen xamné ne ràññee ngeen den muy ndey Fatou Varol ak ki di Soxna fay ndey Fatou Varol dalal na la

di la dalalaat di dalala nday Fatou Baro ramano Sœur d'Ébène di le wax tamit yow tamit ne la bienvenue hein, chez nous et chez toi. merci ma boule d'énergie hein, tu nous avais franchement manqué hein, di nuy tamit euh, kep kuy safo tamit euh, Kewlo TV internet yi tamit euh, di len nuy di len wax ne len gis nañ ni ngeen ñi taxawoo ba tax na luñ duggal tamit ngeen aimé motax tamit ñun yeen tamit yeen tax ñu tok fi fas yéeneen bégal xana rek kan ma boule d'énergie xana rek kan nga doxal ak sa orange. j'aime trop.

vidéo de maraboutage bu fuité entre Naki Rita Ora ak Fenn Ni dal di dem ci ki nga le chanteur Keba qui raconte comment il a perdu sa vue mu une nak histoire bu triste triste dinañ leen andil détail détails. ak ci kanam touti. Corruption de flics à Kébémer, Faye, la fille de Mansour a été arrêtée, plus libérée. Dinañ avons ci l'air Annulation des dettes fiscales des médias, Maïmouna la journaliste, interpelle Maki sur sa promesse non tenue. La musique sénégalaise en dailleurs décide de Massour sec, binôme de Bamamal, ce mercredi 29 mars. Capsicrine, la saga des meurtres en continu, Philippe, plus connu sur le nom de Fil de Fer, a été enlevé, posté et enterré Nous avons ci andil détails yi fii ak ci kanam tuuti ñu daal actualités nationales suñu actualité nationale ak li nga xam ravage du tabac de di def ñu dugg ci actualité internationale Rabat nga décédé

war soxna gis nañ nak li di glow up da ndaxte atteindre na 1 million de vues en 48 heures ginaaw ba artiste bi damay feulé ci émission confession gis nañ ni nak waxon na lu ko métti lépp nan nga gisee affaire bobu nan nga ko jangaté sa confession bi indi na benn bés boo xamante ne tax na toutes les sénégalais je vais pas dire sénégalais mhm. toutes les sénégalaises et même les sénégalais parce que y a des hommes qui qui ont même dit je suis ndaxte mhm. donc bok na ci ñi nga xamante ne tey à euh, poussé nañ li nga xamantene modi euh, son bi donc nak euh, maintenant les gens pour indi peut-être ben polémique dinañ wax ni bad buzz pour pourvu que ou bien pourvu que vu ou bien mais quoi qu'on puisse dire c'est qu'elle a atteint les 1 million de vies c'est euh, de vues en 48 heures mhm. quoi qu'on puisse dire c'est un son beau xamante c'est euh, c'est dope quoi qu'on puisse dire tamit mis ça, c'est il a fait allah nekkul parce que son bi déjà dafa mhm, voilà mhm. donc euh, donc je me dis que les pédales en tout cas Nekul son tu vas te dire non lii la en tout cas elle était top elle était belle en plus de cela son teint c'est autre chose en plus de cela ah macha et j'ai eu aussi man je regarde en fait ni euh, nga xamante modi clip bi en global mm-hmm. donc les images les danseuses tout quoi mm-hmm. surtout le eh, ça va me tuer <laughs> loolu moom mën na ma rey non loolu mën na ma rey Marie-Jeanne nag kii di ex Mario entre parenthèses parce que moom Mario mhm. jël nañ ko benn vidéo gis nañ ko ci benn vidéo muy wax ni kat moo ko ne kat moo leen wax sénégalais di ko wax ni dafa divorcé moom mu leen di wax kan moo leen wax ni dama divorcé ça veut dire que moom fu mu jàpp ba tey moo ko jàpp peut-être ndaxte autant pour moi moom moo jàpp ni divorce am na fa vu qu'elle a subi des violences conjugales autant pour mhm. moi donc c'est ce qu'elle a dit je vais mhm. dire que c'est ce qu'elle a dit vu qu'on est sur un plateau on peut pas au fait s'avancer sur sur certaines Conscious kii nee na moom fasewu ko ndaxte tamit moom nee na yàbbi na ko donc y a une controverse qui s'est créée entre eux deux mhm. mais daal li ñuy mën a jàpp je crois que peut-être fu mariage am nit ko du génn di wax yenn nii mhm. peut-être tamit mbëggeelam ci mom tamit mo dess et que tamit dafa juumoon présente mhm. len daal la xam mooy que ndaxte boude dee loolu la on lui est on lui doit de la force et on la soutient. Mhm, carrément. Mhm. violence faite pour femme moom. <laughs> Euh, alors là faut pas oublier que ndaxte moment bi mu nekk nii nekkul nit ko xamante dafa nax mhm. nax nekkut nekkut a bañ en fait mu ngi garder forme moom comme ni nga ko waxee. glow up

nekk yaa xam li nga xamante ne bokk sa bi te ku mm-hmm. nek te juste ko diko wax encore une fois ndaxte bonne continuation et félicitations si nga xamé clip bi nga génn la neex na mm-hmm. <laughs> ñu dal di jall ci affaire ki nga xamné moy mooy Dora Gaye gis nañ ni dafa détourné li nga xam ne mooy milliard 200 mu am problème ak ki nga xamné moy mooy Zakaria Siow lan gisé lolu varo ah maay Jeanne pour ne pas s'attarder li nga xamante ne mooy loolu parce que li nga xamante ne mooy dossier bi mu ngi si loxoy yoon. voilà dossier bi kon euh, bu fekkee ne moom moo ko détourné moom xam na yoon xam na. Mm-hmm, mm-hmm. kon ñun nekkuñu fii comme ni ma ko waxee sànq. nekk du li nga xamante ne nit ñaa ngi koy wax ci réseaux sociaux yi ñu ne ay cité nañu ay tur. alim mm-hmm. ñun cité wuñ tur.

Mhm. Doro Gaye ban entreprise la xamante mom moom yor na mhm. ak entreprise bi si possible su fekke mën nañu wax entreprise bi tour bi nga xamantene moy tour entreprise am mu ñu wax ñuko parce que ñu non comme man personnellement j'aimerais savoir entreprise bi nga xamantene moy mooy Gay mom la mom ba ñu naan ko PDG. man d'après moi nag su ma di PDG moy Pape Doro Gay comme tour bi dum ma ko wuyoo. ah waaw peut-être peut-être man genre Lola laa xawma nak ñeneen yi. man mom PDG bi mo ëpp lo deg ñu ne PDG. PDG PDG mhm. té Pape le Gaye la dudd. Mhm. PDG ah peut-être loolu la. Ah, mais <laughs> restons un peu sur dans le milieu professionnel mhm. pour ne pas divulguer li nga xamantene moy information parce que loxo loxo l'enquête mhm. suivre enquête de près mhm. d'après les informations qu'on a reçues nee qui kii di BDG autant pour moi d'origine, il y a un moyen sax faire ça. li nga xam ne de millions d'avance alors c'est ça qu'on a dit c'est ça qu'on a vu aussi donc c'est un sujet pour c'est un peu délicat comme le ma mm-hmm. lay wax donc je euh, ngi bëri tamit quoi qu'on puisse dire c'est un c'est un sujet pour c'est viral mm-hmm. ci ñëpp moom la ñu ngi koy ngaang ñu ngi koy waxtaanee ñii ñi ngi wax lii ñii ñi ngi wax laa d'après sax certains sites ou bien certains genre réseaux sociaux y a des y a des noms cités mais bon de toute façon on peut pas en dire plus ni moins parce que xamuñu en tout cas lu nek ci euh da ngay yow mi nek journaliste pour man da ngay gëna gëstu de façon à ce que euh, pour xam exactement euh, le le pourquoi du comment avant de commenter certaines choses parce que déjà il y a y y a des personnes qui te suivent et il y a des personnes yo xamantene dañuy gaaw a ben benn nit mhm. benn affaire analyser ko mhm. no xamantene mhm. yow en tant que peut-être journaliste ou bien en tant qu'analyste c'était pas ça ton but donc dans de toute façon yéene wuñ kenn ki nga xam li nga xamantene mo di prison yéene wuñ kenn ko xamantene natou nattu war na laa dab en tout cas mu ngi ci loxoy yoon te ñun en tant que journaliste ñu ngi koy top mhm. de toute façon lepp lo xamantene rek sotteeku na ci wala tuuru na ci ci li nga xamantene mo ay information yu sûr surtout mhm. et yu fiable dinañ ko indi indiwaatal dinañ ko indi internet u Kéwoulo d'accord ñi dal di jàll ci présumé xeex bi nga dégg bi ñu dégg ci réseaux sociaux yi temps yi rival entre Kidira Racky Aidara ak ak Clara autant pour moi nan ngeen gisee loolu te nag d'ailleurs sax dinaa leen xamal ne nee nañ ne lii di xeex boobu ñuy wax nekkul dëggu. waaw comme ni nga waxee nee nañ nekkul lu dëgg parce que ñu ñuy xamal ni que rak ba mu ñëwee sax. nee nañ mhm. jotul wàcc otoom si mhm. otoom la yem. Mhm. ñun dañuy ñu ngi dégg madame Guèye madame Guèye bëgg nañoo xam dèjà ku nekk yaa ngi créé scénario. en tout cas moom nee na MG signifie meilleur gâteau. ah ok d' li nga xamante ne mooy live ba mu duggoon TikTok si je me trompe exactement moom la ah, yàlla baax na peut-être dinañ am lumière ci information parce que mhm. xeex moom nekkul loo xamante ne c'est quelque chose loo xamante ne am na mhm. civilisation en connaissant Raki en connaissant Clara mhm. ñoom seen esprit ak seen grandeur yaakaar na dépassé na li nga xamante ne mooy ay xeex ay loo xamante ne lu ñàkk fayda ñoy sunu mais li gën a neex mooy Marie-Jeanne ñoom ñaar ba léegi kenn déggul leen kenn waxu ñun ñoo yor mhm. suñu làmmiñ di wax sénégalais <laughs> ñun ñoo nekk ci réseaux sociaux yi di commenter di mhm. wax naan xeex nañ xeex nañ mhm. mais li nga xamante ne si si moom lañ mën a sikkandiku ñu ñu xamal ni que rakk bi mu ñëwee sax wàccul otoom. Mhm. dafa ñëw après mu retourné waat. Mhm. kon di ko wax di leen wax ne ko ñun sénégalais nañ bàyyi créé foo xamante dara xewu fa. Mhm. di bàyyi loo xamante di a na ñu doon naan sax rakk yi moom da doon nëbb ki nga xam ne mooy Doro Gaye kon daka takk ñu naan takk na ko suuf takku ko suuf <laughs> gis nañ ah. nag lii nga xam ne mbir bi ba mu amee ñu ne kii di rakk yi demoon tribunal ba sant ak donc pour nous nañ jàpp ni que am mbir bi am na fa wala amo fa yow lan nga jangate mbir bobu alors des fois déjà man personnellement personnellement. euh, me damay bëgg lu ma wax mo may leer. Mhm. te genre dafa am sénégalais yu bari yo xamantene ñom de dañuy dañuy wax ni juste dans l'air. tu mhm. vois mhm. te loolu je crois que au fait parce que acharnement bobu entre euh, genre. Euh, nga entre peut-être Clara Clara je crois que ça fait presque deux mois que ça dure uh-huh. pourtant aucune de ces de ces de ces dernières n'ont donné en fait signe de vie concernant ces choses uh-huh. donc je crois que les miroirs, parce que j'ai vu un jour euh, elle faisait un jeu avec Didier Crécha uh-huh. qui xawma j'accepte et mon cœur reste ouvert il a elle a dit sénégalais également mon xam vie alors que peut-être yow yendo ak nit ki un ak nit ki je prends pas sa défense mhm. mais on est en général comme ça donc histoire depuis lors ça fait deux ans ça fait deux mhm. mois presque acharnement donc je crois que tout le monde a droit à une vie privée et je crois que as dit que dem commissariat dem fa que tu na fa que en plus de cela je crois que ça n'a pas de sens donc s'il vous plaît en fait it. ku ci nekk tey ji am nga droit garder sa vie privée am nga droit tey ji bañ a wane sa en tout cas pour man acharnement bi daal war na war a mën doy surtout laissons les célébrités vivre leur vie man daal loolu parce que da moment donné au fait dafay nduru benn harcèlement wala benn acharnement boo mm. xamante ne te yow li ngay wax yëpp genre tu peux pas amener de preuves elle a dit qu'elle est mariée on accepte elle a mm. dit que MGC mère gâteau on accepte tout jusque là on n'a pas lu ou bien vu ben interview bu mu tuddee turi diw mm-hmm. wala boog bu ñu gisee nous en tant que journalistes on fait des investigations nous sommes tey jii ni ben genre ben diction wala ben waxam bo xamante ne gis na mhm. ci ci tour donc en un moment donné tamit sénégalais pour man arrêtons de créer du buzz mhm. euh, en fait ci ci li nga xamante modi vie ou jàmm parce que une vie privée c'est une vie privée donc gardons euh, genre la vie privée des gens quoi ci ben instant. comme le ñuy wax rek du jamais bon du jamais bon. dañuy daal di jàll ci bu. vidéo bu fuité bu maraboutage bu fuité entre qui dit Rita Ora ak fen. J'aime beaucoup parce que c'est une fille, elle est discrète ou, ou non. Secondo, elle s'assume. Mhm. Troisièmement, elle fait, elle fait pas parler d'elle. Mhm. Donc je crois que Taïdini, bu que euh, Fëna si je ne me trompe pas. alors Fëna la ñuy wax wala Fën parce que mon depuis l'âge non man en général Fëna parce que genre le nom c'est F E. U-N-E. u donc je moi depuis lors c'est fëna fëna fëna laay dégg. Mhm. donc fëna là, que j'ai jàppee mais pas fenn. donc <laughs> euh, voilà donc c'est un cas où, xamante peut-être gis nga li des fois ci na euh, a gisee dafa wax y affaire bu important mooy on on doit éviter les les pervers narcissiques je dis pas que mhm. fëna est un pervers narcissique mais on on doit éviter au fait des des hommes yoo xamante des dañuy bëgg di defante ou bien qui rendent leur vie publique je crois mhm. que lors loolu jigéen moko wara def pour man mhm. defante sur les réseaux sociaux montrer ceci mhm. montrer en plus de cela man j'aime trop répondre avec le silence donc Rita aura la façon dont elle répond à Fun hein. mhm. je sais pas si c'est du c'est euh, marabouta parce que tamit déggaat nañ yeneen chose yo xamante bokul lo loo xala bu jigéen bi mom moko don doon dund ci euh, quelques lectures yo xamante gis nañ ko ci li nga ci ay mhm. donc daal pour man vie célébrité dañ nit ñi ñoo bëgg mais c'est pas une vie paisible Varor c'est pas une vie paisible mais daal ko la fille elle est classe elle est discrète elle s'assume et elle reste belle en plus de cela elle elle n'est pas là à dire lii moo ma dal lii moo ma dal lii moo ma dal donc depuis lors classe lañ ko mhm. xamee ak maturité donc euh, man daal xam nga lan laay que ni peut-être mariage bi waroon am na euh, am maintenant que ça soit histoire de maraboutage ou non on n'en sait rien j'en sais rien et donc je pourrais pas au fait trop m'avancer mais en tout cas Dal, on donne de la force à Rita point. merci on donne de la force à Rita <laughs> alors Varo lan nga jangate loolu ci mur bi. Euh, euh, d'abord ci vidéo bi. Mhm. pourquoi légui mhm. depuis que divorcé bataille. Pourquoi mhm. pourquoi fëna xaar moment bi génne vidéo bi. Bah, parce que xalé baa ngi glow up lu neex ci Paris est-ce que ñun <laughs> xale yi d'après internet yi bala ngeen may yóbbu xalé yi nee nañ Rita ba mu demee Paris gis ngeen glow up beeg charme bu muy dégager mais dama ragal né li nga xamante moy vidéo bi tout less bi. wa tout less <laughs> te te te genre je vais juste acheter une chose est-ce que xam ngeen ne am na góor xam la mo leen gëna metti métti mm-hmm. ñu bàyyi la nga mel ni nen. xale bi dafa mel ni nga mel ni nga mel ni nen est-ce que fëna doyal na ci li nga xamante ne mooy Rita mhm. pour dire vrai Rita sénégalaise la te xam na li nga xamante ne moo am Sénégal mhm. te lii bu fekkoon ne d'après li nga xamante ne mooy am Ahmed Cissé sax mu ngi koy wax mhm. mu ngi naan ñi xam dem katu sëriñ yi kii dalay wan ne du nekkul expert boo xamante ne day dem ci mhm. sëriñ yi mhm. parce que mu ngi def vidéo pour bañ a fàtte mhm. kon moo lay wane ne lii lan moo ñu leer ne que nekkul loo xamante ne c'est pour li nga xamante moo jëm ci vie personnelle par rapport ak li nga xamante ne mooy euh, euh, célébrité bi nga xamante ne moom la nekk en tant que tel te rien rien n'est sûr que ne c'est Rita parce que génnut tontuwut mhm. waxut moom mu ngi glow up mu ngi nekk pareil mhm. man daa dama ragal ne fëna doylu réellement comme li nga xamante ne moom la sénégalais di wax parce que sénégalais la mais neexut a bañ mhm. Rita quand même elle est belle mais c'est une bombe <laughs> alors alors alors nañ jàll ci euh, message bi gi bind fële ca Twitter waaris ji solo ñu ko mënee àndil alors bi gi nee na confisquer son téléphone envoyer des messages à ses ex jusqu'à les insulter s'excuser, frapper sa femme devant ses potes, oublier, faire cuisiner 8 kilos de chèvre matin et soir, ramener 9 potes tous les jours à la maison sans oublier les faux sacs de marque qui accompagnaient la dot. Lida notre Biggie Biggi wax ci Twitter Mom, mom, na gis défendre Rita bu a ki nga exom bi tellement c'est bizarre ma en tout cas c'est baby maman c'est baby maman mhm. qu'on qu'on dit tout le temps baby maman baby maman mais Biggie, dama ko bëgg. bi non Biggi moo ngi sot Biggi mais en fait Sénégal dafa mën a sot. depuis loolu ak doole maa ngi koy gis. non ñëpp ko apporté essence su ñoo ngi koy joxe de la force mais ba tey la concerné moom kenn gisagu ko mu génn waxul dara ci mbir lii boo xamante ne mu ngi koy wane. par mhm. rapport mooy euh, euh, message bi nga xamante ne euh, publié na ko. Mhm. mu ngi wax ne am na jour boo xamante ne dafa dem tournage. mu fekk ko fa jëli ko fa. Mhm. dagg contrat bi. ba cité na tour man ko ah témoin yaa ngi fi dund ba tey. ba cité benn tour ne ko ah diw. si si.

Alors, c'est perso. Personnellement, c'est un son qui m'a fait pleurer, mhm. tu vois, parce que il n'y avait rien. Il n'était pas malade, il n'avait pas, pas de problème de vue. Euh, vue mhm. que ay ne je sais pas 19 neuf dix douze heures la si ma guen di dem djek djek sama bobu di metti bam mhm. di en mhm. plus ma après la tok sama ben genre un truc bam c'est donc peut-être que il s'est dit en plus il a une très belle voix je crois que c'est quelqu'un pour xamantani war ko war a parce que mhm. il a pris sa voix au fait mhm. pour exprimer exactement ce qu'il ressent parce que mhm. tey jii ku ne xam ni que ñun loxo rek bu ñu mettee ñu fogg ne tey jii tey ñu imagine tu es là ngay faw di doxi say soxla am peut-être sa sa gel tu vois par exemple di jaay di liggéey tu un jour pour wax la ne la nattu yalla manam du du du du nga xey suba to gis Mhm. gisatoo sa yaay gisatoo sa papa et puis tu peux pas expliquer au fait ce mhm. phénomène. Mhm. alors man lu ma gën a frappé nag ci soir bi mooy bu muy expliquer mënul sax gis doomam. voilà loolu daf ma frappé. voilà voilà c' est c' est exactement c' est c' est c' est l' exemple de Pape Mbaye. Euh, def def ndeysaan yal na ko suñu borom yërëm ah. taxaare ko ci àldane fii daw si moom ndeysaan mi ngi koy wax naan yaay màgg naa li ma metti mooy mënuma gis sa kanam. donc pour man état war nañu bàyyi xel ñooñu. xam nga di leen inclure surtout comme que culture la ñuy def moom mii war nañ mhm. ko war a mën a def ko ci label produire ko xam mhm. nga parce que boo gisee tamit environnement bi mu tourné bi tu vois que mhm. peut-être il n'avait que sa voix comme arme pour expliquer exactement li muy dund papa ba pare des fois tamit dañuy jàpp ni que ku si si genre affaire de ku affaire mm-hmm. aveugle alors que peut-être mën nañ am métier comme moom savoir am donc nañ ko jàppale ci côté non mm-hmm. alors Varo kii di un Diop nag mu international sénégalais mu joué basketball d'après nag information yu mu joxe woon fële ca confidence nee na dañ ci équipe nationale lan nga jàngatee loolu. ah en fait euh, maanaam liñ naan siiw du jàmmi borom. wax nañ ko fi boo dem. am mhm. na ñoo xamante ne dañ lay estimer. Mhm. am na ñoo xamante ne buñ sañoon yow tu vas pas briller. Mhm. di ko wax ne. Euh, Yacine, faut pas, faut, il faut rester forte, mhm. comme tu l'as toujours été. D'après, tu as critiques que tu as critiqué, c'est venant de toi que dans des monoto, monoto, que Non, non. Mala, mais expliquer, je vais juste un extrait pour me toucher. J'ai été victime d'un maraboutage à l'équipe nationale. Mhm. Il m'arrivait des moments où je ne savais pas où m'orienter. Ma vie était complètement bouleversée en termes clairs. J'ai été atteinte mystiquement. que je veux dire. Ah, c'est un peu triste mm-hmm. li ko dal mm-hmm. parce que nit ki fi nga nek rek moy sa bërëbu kay mm-hmm. bo demee ba yenn yi dal la fa doto xam sur quel pied danser da ngay rire psychologiquement physiquement doto am loo xamante ne mooy force mhm. juste que diko peut-être mom situation yim mu dund moom moo ko xam si exactement ñun ñu comprendre li nga xamante mom la dund feulé ci équipe nationale mhm. mais nak dañuy compatir li nga xamante ne mhm. mooy douleur am li nga xamante ne parce que lutax mu wax ko peut-être da ko touché personnellement parce que nit ku nek yaay ngi gis muy dox gis nañ ko mu nek ci réseaux sociaux mu jovial di kaf di ree elle était aimée parce que c'était le chouchou des Sénégalais. Bilaay man personnellement je l'estimais dama ko bëggoon ba tey peut-être bu retrouver la place am bi nga xamante amon nako ci basket autant pour ma basket bi euh, dina mëna li nga moy insertion bi mm-hmm. wax bon courage té je la yalla jappalé ba nga mëna a retrouver li nga moy sa force bi nga amone hier mu ñëw fekk ci waat la tay Amin alors soxna corruption de flux gis nañ nag di autant pour moi la fille de faire. Donc, plus alors foofu tamit dama fay daal di vague rek. Mhm. parce que nit ñi ñu ngi naan corruption ñi ne kado la. te xam nga nag loo fekkeewul moom mënoo ko mënoo cee kaa xam nga man bëgg naa kaa ku ne xam na ne bëgg naa kaa mais kaa am na kaa yoo xam te je peux pas trop m'avancer mhm. donc je vais juste au fait prendre au fait euh, comme cadeau cadeau mhm. la. kado laa ko jàppee. dëkk bi kat wóorul. kado la da ko bëgg da ko yërëm jox ko kado. doon boog kado. <laughs> kado Varro lan nga gisee loolu soxna nee na moom kado a ko jàppee. ah comme moom xamante ne mooy nayu léegi. Sénégalais ñëpp japp cadeau. Mhm. nañ ñëpp japp cadeau la. te ñuy joxe cadeau dañuy jox cadeau. ñun mhm. ñëpp dañuy jox cadeau des fois nga ñëw né ma cadeau valeur. cadeau <laughs> yalla baax ñu <laughs> jàll nak duñ fi duñ ci taxaw ci sujet bi di ci attendé wu alors annulation de dette fiscale des médias Maïmouna Ndour Faye interpelle Macky Sall sur sa promesse non tenue temps nak li nekk na la loolu le rival ci réseaux sociaux yi Maïmouna Ndour Faye nak mo ngi naan Macky Sall te nuyoo euh, promesse ci lu mu waxone ba tax ni nak instant gis nañ président bu bees la am lan nga jàngatee loolu. waaw man de Marjane personnellement. Mhm. dette fiscale dama jàpp ne ñëpp na nañoo mën a fay. Mhm. parce que buñ defee ci analyse bu ndaw. Mhm. jàkkatu gejj bi nekk ci marché bi. day fay. moom mooy juuti waa bu xëyee dangay gis waa mairie bi ñu ñëw daggal ko juuti. mu dem moom jàkkatu gejj bi. yow nga yor sa entreprise. di am ay employés. fayal may mun a. Euh, déjà moom sax bind na message lundi vers 20h ma collaboratrice m'a envoyé une lettre qui a failli me faire évanouir la direction des impôts considère que le décret n'a pas été pris et donc la dette fiscale devra être payée. ah lañ yor mhm. tout va être renégocié. Mhm. Les loo xamante le lu précédent la loo xamante ne Macky Sall bàyyi woon nous avons dañuy négocier de déjà et de dañoo woote jub jubal ak jubbanti. voilà kon nañ topp si jub jubal jubbanti. buñ ko Sénégal peut-être dina année alors ça, a ban va nga ci ajouter alors juste comme le ko du avait un dette fiscale ñëpp ko war a fay parce que ça mhm. participe au fait à l'économie de, de notre pays mhm. donc je crois que tey ji lépp loo xamante day participer économie de de notre pays pour man warul am ay njuuj ndaaj ak euh, kumba am nday kumba amul nday ñii di fay ñii fay mhm. parce que comme le ko Varro wax rek ki ñuy fekk tey ji ci marché ba nga xamante ne yenn saay mu jaay 1500 cinq nga laaj ko francs mu joxe la de 500 cinq cent bokkul ak tey ji kon kooku loolu rek tax exemple war na exemple ba nga xamante ne yow mi nga xamante peut-être da ngay liggéey ci li nga xamante ne moo di genre affaire de télévision et tout ak lépp tamit nga war a mën a fay donc je crois que c'est pas un problème te ci comme li ñu wax rek nguur du fi newoon ak bi fi ne bii pas du benn donc va juste fa avoir un un esprit d'adaptation loolu rek laay wax. Mhm. la musique sénégalaise en deuil décès de Mansour Seck binôme de Baba Mal ce mercredi 20 mars. ñun waaf Kéwoulo ñoo ngi koy wax ni toutes mes condoléances yàlla na ko yàlla yërëm xaree ko àjjana ñoo ngi wax tamit kii di Baba Mal qu'il soit fort ndax xam nañ ni binôme la. Je vous remercie. Euh, waa Baaba Maal di ko dal métti na nekk na mhm. nit koo xamante ne il est un peu discret on peut dire si euh, euh, bu fekkee ne am na naqar bu dal ci kawam ñun ñëpp on doit lui dire Baaba Maal on te souhaite on te donne nos condoléances de la part de Kéwoulo TV mhm. ak ñi nga xamante ne ñu ngi ci plateau bi mhm. di la wax ne que yal na ko yàlla yërëm te yal na la yàlla may yoo tamit li nga xamante ne mooy xolum muñ ba nga mun a dékku li nga xamante ne mooy naqar ak tiis bi dal sa kaw alors sortant alors ko ne xam ni que décès dafa diis. Mhm. nit ku nit ku nit ku jóge ci ci yaw mu leer na doto ko gisati dafa metti d'autant plus que même bu sax baba ma je crois que la pour le sphère. Mhm. de la musique sénégalaise ci boppam ci boppam mom lañ ko wara jalé parce que tay ji il était quelqu'un bo xamante ne bégal nañu ci façon bu né en plus de cela il avait voix bo xamantene ne macha allah. Mhm. donc do comprendre xam nak sama époque gu yaay la won et tout donc euh, ni ngi koy souhaiter genre euh, qu'il repose en paix. Mhm. Euh, yàlla na ko sun borom teeru teral ko fofé tamu mu tamit jégal ko lépp lu doon mu rëccu lépp lu doon def fi nga xamantene modi Sénégal je crois que c'est la musique sénégalaise en fait qui est en deuil mhm. mais particulièrement Baba Maal donc force à lui.

parce que da ko ben auto ci liñ jot mhm. d'une valeur de 12 millions euh, da jox li nga da photo ay faux carte grise diko ko envoyer mhm. am confiance de trop bo xamantene ci mécanicien mhm. à chaque jour carte grise mais mu mu garder confiance ak nga mécanicien bi jour téléphone mu ko nga xool oto bi. pare na ay guddi na. woo ko guddi. mu ko léegi jabaram nee na ko est-ce que doo ba suba comme ko guddi na. Mm. intuition mu ne ko. <laughs> comme confiance am na lalu na si den diggante te yàgg nañ. mu ne ko déedéet bàyyi ma dem. Mm-hmm.

rien que parce que y a la confiance bo xamantene amna entre ñom ñaar mm-hmm. mu dem bam démé si la lii am ñu daal di koy li nga xamantene mu ray ko sul ko mm-hmm. bi sulé nak d'après li nga xamantene moy euh, police ñu ngi def li seeni liggéey ñu dem fekk ko daal ñom ñoko sulil sen bop mm-hmm. d'après information yi jabar ji dafa tok toute une journée gisul ki di jëkkër di ta da tàggoon de dem Cap Skirring dem jëli ji auto bi bu mu togué toute une journée gisuko ci la démé def li nga xam moy avis de disparition bu ko démé def ji nak ci le police commencé ko seet ba gis fuñ ko suul ci lañ ko demee sulli ji c'est vrai parce que jëkkër jabaram moo moo la moo alerté li nga xamante ne policier que ne gisut li nga xamante ne mooy jëkkëram mais euh, rien que rek euh, di ko wax ne euh, moom jabar ji di ko wax ne ko non fort mhm. qu'elle soit forte parce que c'est pas du tout li nga daal di ñàkk sa jëkkër si li nga xamante ne mooy circonstance yi li mhm. di wax ni il faut limiter li nga xamante ne peut-être confiance ñu wàññi mhm. trop de confiance ñu jox nit ñi peu de confiance trop de confiance ça peut nuire loolu c'est vrai mom confiance peut-être moko yobé li nga xamante mom la nekkee ne mhm. alors ñi daldi di suñu actualité nationale soxna ak li nga xamné moy ravage yu tabac yi nekk di def alors moi je loolu le xam naa même burul sax people news bi inshallah dañ ci def ben reportage bo xam ne c'est mhm. entier parce que je parle même pas voilà même pas du ravage mais nouveauté si nouveauté parce que tay ji bo gisé kuy bàyyi tox parce que affaire tabac jopam boppam dafa bari ay ay étape ay étape ci biir. y a des ah, choses xam nga tey jii par exemple dañ naan la par exemple le puff. dañ naan la boo bëggee bàyyi tox ah. dee ko dee ko utiliser. Mhm. alors que d'après benn expert je l'avais lu ci benn journal. puff moo gën a bon. Mhm. sax. Mhm. Euh, tey jii cigarette. donc je crois que d'autant plus que tey euh, mu nekk journée bi donc c'est quelque chose boo xamante ne tabac abus bañ nañ ko ba dañ la ko bindal abus dangereux pour la pour la santé en plus les man li ma gën a métti mooy yow nan ngay demee ñu wan la ci paquet bi genre image boo xamante ne yow a beaucoup gisee sax doo bëgg a lekk. si pourtant yow ça ne t'empêche pas d'acheter ça. ak privé. donc ak privé. Mhm. tu vois tu n'as pas ce besoin en plus de cela da ngay gis koo xamante ne tey ji léegi par exemple il y avait une vidéo TikTok bu ñu doon wane benn ay mhm. taalibe yu nekk ci pont. si euh, suufu pont bi xale yu tuuti. est que nekkul si sacré genre xale yu tuuti genre technopole bi noonu. voilà voilà t'as tout compris. Mhm. genre xale yu tuuti genre le gars au lieu. mu dem mu nangu ko. il était là à les filmer. les ça veut nga gis dañuy dañuy tux ak genre ku comme ku ko mhm. xëcc normal sànni ci air bi. en fait euh, soxna pour ma bañ la dagg. sax mhm. en fait ñun ñi nekk ci kër yi ñoom ñooy jàngal xale yi tux Mm-hmm. xam nga tax da ngay gis mm-hmm. benn xale bu nekk am 6 ans. nga jox ko yónnee na ko dama jënd ma seen cigarette si. exactement te en ñoom dañuy toog a yow. Mm-hmm. di tux di la tuxloo. en li ñuy dégager li ñuy sànni moo gën a bon. te ñun dañ influencé sans ñu xam ko. ñoom moo gën a bon ci ñun ni den ak yow bu njëkk sama yaay daan na wax ni que. maanaam cigarette. boo ko daan jëndi déjà dañ la ko daan lama lëmasal si kayit mhm. en plus yow muy tox doo toog fu ay nit sa waa kër même ba sa waay jur du xam ne yaa ngi tox mhm. maintenant tox bi pof yi nag pof yi léegi da ngay romb ci mbedd bi chicha bi nag chicha bi waxatuma ko chicha bi moom genre waxuma la sax ravage mais genre chicha bi léegi tendance la si tu le fais pas on te on te traite de coincé te tout ça c'est du tabagisme qu'on se dise la vérité donc arrêtez tant qu'il est temps parce que tey jii nii tey lu ñu leen mën ci wax que ça soit demain, après-demain ou bien dans 10 ans, il y aura des répercussions. Donc Exactement. arrêtons au fait d'excès tôt, au fait. Mm-hmm. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Nous avons une actualité internationale avec Rabat décès un Sénégalais à la suite d'une bagarre avec des Marocains Nous avons ñoo ngi jaa ñoo ngi xamal ni mu ngi wuyoo ci dit Cheikhouna nous dafa amuloon problème ak des Marocain da ko jaayoon benn écouteur léegi mu ko ko jaayee Marocain bi

Il y avait sa ah. famille là-bas ou bien Kaolak, il est d'origine Kaolak. Ça m'a beaucoup salm salm là. Feu mhm. Dieu. <laughs> Ouais, dama gaaw jooy c'est trop sensible en fait. <laughs> mais nak euh, mhm. di mastawu mais di ñaan li nga xamantene moy genre yi parce que Marocain bu ñëwee fi ñun dañ leen di xajal. si exactement. pourquoi pas ñu xajal ñu. Mhm. nekk fe parce que Sénégal Sénégal Maroc ben la. te li mënoon nañ ko éviter ay affaire de écouteur. moo tax fat bakkan jàmm yu banal lu ñak fayda li mënoon nañ ko éviter bu baax te il est temps que nak li nga xamante moy mooy nguur gu yi jël ay initiative par rapport ak li nga xamante moy doomu sénégalais yi nekk ci yenen dëkk yi ñu gën leen mëna gëddal jox leen li nga xamante moy sen droit comme ni ñom bu ñëwé fii ñun niñ leen koy joxé alors esprit tranga boobu yaakaar naa ni Sénégal rek la yam alors soxna lan nga ci gisee ci loolu non man lool c'est c'est écœurant. Mhm. dal day metti xol. Mhm. yow en tant que sénégalaise daf lay metti mais tamit liñ naa réfo ama nit ku ci nekk nee nañ yàlla bu lay jël ak loxo bu mu lay awale donc peut être que réforme la mais pour man tey mënoon na ñàkk mhm. parce que ñu je crois que suñ teraanga tamit dafa bëri trop dañu mhm. bëri teraanga dañu mën dalal nit et pourtant ñun buñ ñu demee ci nit ñi pour ñu dalal ñu c'est tout un problème mhm. donc je crois que ces choses là c'est à éviter wala boog comme que loolu te léegi mi ngi bëri bëri mais pourquoi pas ne pas rester au Sénégal quand même restons au Sénégal travaillons tamit boo demee fee ñu rey la nga perte pour sa pour sa waay jot joraat jot si sa koor sax ça sera tout un problème donc restons ici travaillons ici yàlla baax na mhm. j'espère en tout cas c'est vraiment c'est vraiment dur espérons que lii di jeunes yi dinañ ñu déglu bu baax a baax alors ñu daal di jeexalee suñu actualité internationale bi nag ak France benn xale la papam daal di fàtte ci autom bi en plein night en plein soleil autant pour moi ba xale bi daal di faatu lan nga jàngatee loolu Varro ah doy na waar Marie-Jeanne ni ngay jeexalee sa people bi mom daf may toucher trop trop trop parce que bo jugee Maroc dem France te lépp ci ay décès la day nek lu metti metti metti metti euh il faut être toujours vigilant par rapport ak li nga xamantene mom lañuy def ak suñuy doom. Mm-hmm. alors soxna lolu sàggan lañ ko mëna jappé wala perte de mémoire. parce que sa doom noo koy bàyyee ci auto dem liggéeyi ji. sàggan ah te lo ci xamul dafa dem liggéey ji bu mu demee liggéey ba mu wàcc muy soog mu ne xaama dem jëli ji sama école sama doom bi école bu mu wootewee ñu ne ko sa doom ñëwul ci la woowee yaay xale bi ne ko dama xool ci oto bu ñu demee dañoo fekk xale bi gaañu. man xam nga négligence la. si mais fast track bi nekk Europe. des fois même toi tu t'oublies. Mm-hmm. parce que tey jii nii y a trop de choses dans la tête gis nga comme ñun nii Sénégal yi ñuy jëlee suñu mm-hmm. temps France amu fa. Mm-hmm comprendre nga li ma lay wax. Mhm. extérieur lol amu mhm. parce que ñom dañ donc def gis euh, nga kooku nit ki nga xamantene dafa dem tay di ni ba faté domom ci otoom. Mhm. toute une journée. toute une journée donc Coco, elle a quoi. autant pour moi il a quoi dans sa tête te tey ji loolu yëpp tey ji def si jouer, parce que faut fast track la ka canicule bi mhm. fast track bi fa nek yow sax yow sa jëm bop sax des fois da ngay fàtte sa donc des fois je crois que négligence la mais aussi je crois que tamit nit pour man des fois da ngay ni bàyyi xel xalé yi surtout d'autant plus que xalé yi dañu sop en plus li ma metti moy le bébé il est mort en souffrant mhm. parce que imagine on t'enferme dans une voiture mhm. tu n'as pas d'air ci oto bu tàng jër. Mhm. non man Marie-Jeanne on on on on arrête on arrête franchement. <laughs> dama daal di leen andi comme ni ma leen ko andee son lii nga xam ne mooy gëstu bés bi gëstu bés bi nag tey lu mu leen andil mooy application Tantan gis nañ ne Tantan temps yi nag dafa réeval loolu ci réseaux sociaux yi ba tax na nag mën naa ne commencé na andi li nga xam ne ay problème ci couple yi gis nañ ne nag ci benn vidéo varo ci TikTok bi kenn di expliquer ni Tantan moo yàq sa yam te man Tantan dafa bizarre ah loo ci xamul da ngay da man application bi sax bëgguma ko am mais d'après

tu dois savoir que li yëfu dof la. Mhm. déjà mhm. te xam nga sénégalais mom lu mu dëgg lépp li dugg. murax lepp lepp murax manam ñom lepp ñoom lépp lu ñu ràbb. ñëw bu yàgg rek sénégalais ñoo koy jox. lu ñu ràbb ñun en général noonu lañ def ah. Mhm. iPhone ñoko mujjé jot. mais ñoo Ford ñoo ko mujjee jot te pourtant lu ne lañ jaral. légui nak nee nañ lañ poñe wa ba Tintin di fi fa Tintin di mujjé ñun tu tass na benn sey entreprise day tass ñaar laa dégg pour le moment ñaar waaw baax na ah, bu bu bu dislogé good famille xam nga xam nga tanta lu mu xam nga tanta lu mu bëgg ñun kaakat ni ñu pose waaye ne ko mënuluñ dara on est sur WhatsApp Snapchat. alors chers amis internautes nag c'est la fin de cette émission ah xam naa ne nag moom temps bi moo ñu xoj rek bëggoon nañ continuer ak yéen mais émission bi neex na loolu loolu loolu sax ba ñun ñi sax bëgguñu tàggatoo ak yéen waaye dañu daal di tàggatoo rek ndax lu neex lu lu lan la wax. lu neex du doy voilà alors Varol lan mooy sa dernière carte euh, Marie-Jeanne encore une fois merci merci soxna nga xamante ne damay partager moom plateau bi. maanaam bàyyi di waxtaawas de. li <laughs> li bàyyi ko mu tëj émission bi. dañuy wax naan li li duuf si nag bi yëpp xajul ci cin li. Mhm. di leen dig daje ba beneen samedi di leen wax ne restez toujours connecté et suivez toujours People News ak notre Marie-Jeanne notre bien aimé et à bientôt ak si information yoo xamante ne c'est bien loo xamante ne dañ koo saytu mu nekk lu leer. merci beaucoup alors toi. Alors, merci à toi, Marie-Jeanne, ma boule d'énergie, ma tomate fraîche, ma pamplemousse. Euh, à toi aussi Varoma ma noire sœur de Vena sama Kumba Gawlo Seck bu len mako jappé nak c'est juste que je suis comme ça damay bëgg nit ñi di ambiance di kaf di foo di ré mais bu sérieux jotee suñu def ko donc c'était tout au fait ci pour euh, euh, People News franchement mu nek People News bo xamantene on a eu des émotions au fait ci kaw ba ci suuf surtout à la fin c'était franchement déchirant xana di len wax rek di len dig dajé benen yoon ci benen People News ak tamit benen samedi surtout nak avec notre M.

afamo lungali konton kolen na jali yasilola iye kamben kabo munya